ndigalul sëñ Ahmadou Mokhtar mu jaarale ko ci sëñ Ousmane mi nga xam ni moo jiite diwaanul Muridina ak ci ndigalu sëñ Laat mi nga xam ne nii moo jiite commission euh, seet setal bi nga xam ne nii mooy lañuy waajale màggalug Daaru Xuddoos mu ah, ngi leen koy yëgal nag ca di leen ci soññ di ko jaarale nag ci kilifa yi nga xam ne nii ñoo ëmb Daaru Xuddoos moo di ci ndigalul Eh, sëriñ Ahmadou Mokhtar ak jaar ci sëñ usmaan Mbacke jaar ci sëñ Laat Aliou mii commission bi nga xam ni ñoom la ñu dénk ñu yore set setal bi ñu ngi leen ci nuy ci seen tur ñii toog ñun ñëpp noo bokk benn pas-pas muy ndigal li bàyyi ci sëñ Ahma jaar ci sëñ usmaan ba ci sëñ Laat Aliou mii toog ci suñu wet loolu lañ leen bëgg a jottali moo di képp koo xam ne nii daayira boo xam ne aju nga ci diwaanul muridiina muy buntu këri sëñ mu Moussa yëpp ñu ngi leen di woo ci mbale mi ah, mbale mi moo di ajjuma ji jëm bu dellusee see jiinu jëm rek moom lañ bëgg ñun ñëpp ñu ñëw daje fii ci Daaru Xuddoos ñu ci jiital nag kilifa yi nga xam ne nii ñooy kilifa yi Daaru Xuddoos mu di waa kër sëñ Daaru Assane Ndiaye ci njiitul sëñ abdu Khadir njaay ci teewaay maam seex Say njaay mii nga xam ne ni moo jiite village bi di ci soññi nag kilifa yëpp di ci soññi eh, kilifa yi nga xam ne ñoo aju ci sëriñ Mbacke Gueye Ngathie muy Cheikh si nga xam ne ñoo aju ci Darou Khoudoss gépp bàyyiwuñ kenn di ci soññi itam nag waa kër seex maam Cheikh Ibrahima Fall. ñi nga xam ne nii ñooy làmp yoon wi ñi leen ko ñi ngi leen ci soññ bu baax di ci soññ sëñ Cheikh Ndigal Fall mi nga xam ne nii lépp lu ñuy def ci Daaru Xuddoos cër la ci am boo xam ne nii suñ borom moo ko jox di ci soññ itam waa kër sëñ Madiba Sylla di ci soññ it waa kër sëñ Ridial Seck di ci soññ itam monsieur le maire Abdoulahat Ka mi nga xam ni moom la sëñ bi dénk dëkk bi teyit moom am na ci taxawaay am na ci wàccuwaay ñoo ko ciy soññ xam nañ yitteem ci daaru xudóos ñoo ko ci soññ bu baax lépp liñ ñu yaat eh, bëgg di ko te mënuñu koo ñàkk lépp danañ ko ko yëgal mi ngi ci sax waaye dañ koy gën a soññi rek te xam ni dëkk bi noo ko séq di ci soññ itam mboolem dayira yi nga xam ne nii aju na fii ci daaru xudóos bàyyiwuñ benn dayira ñëpp lañ lépp lañ soññi di ci soññ itam nag mboolem képp koo xam ne nii dëkk nga Daaru Xudóos wala nga yeewoo Touba mbale mi nga xam ne nii sëriñ Modou Moussa moo ko daan def digle ko ci seetal Touba bàyyiwuñ kenn ñi ngi soñ ñëpp. di fàttali bu baax itam mbale mi nga xam ne euh, moo lal tay bis boobu te sëñ bi nee na woon bis bi gën ci bisam mooy bis bi muy wuy ji boroomam bis bi muy jàkkaarloog moom te bis boobu la ñëwoon fii Touba bis boobu it mbale mi euh, seetal. dëkk bi lañ ci jublu waaye dana seetal it ay bàkkaar dana seetal dëkk bi waaye dana seetal ay bàkkaar waaye itam euh, dana tax nit ki euh, xolam sell te it sëñ sëñ Mourou Moustapha mi ko digle woon doon na ko def ci jamono ñuy bale mu di ko ëmb ci mbubbam ngir bëgg a barkeelu ci mbale moomu. Euh, bisu màggal gi ci boppam itam guddi googu am na ay yu bari yu ci xew yoo xam ne koo xam ne fanaan nga ko fit di defee noona muy jàng alxuraan jàng xasaayit di wax lu baax. di ko def ba asamaan si wécc ni guddi li mu laaj nga defe ko noonu ba mu egg yow yaag ba nga juddoo ci sa ndey yéen a jëm ci guddi googu. kon looloo tax ñuy woote mbale mii ci turu sëñ Ahmadul Muxtaar mu jaar ci village bi jaar ci sëñ Ousmane jaar ci sëñ ñëw ci sëñ Cheikh Ndiaye ñuy soo woo mboolem gox yi nekk ci dëkk bi yëpp daayira yeeg euh, kuréel yeeg fu waay mën ne nga indi say jumtuwaay fas yéenee taxaw liggéey bi fas ko yéenee liggéey fii ci pencum Daaru Xuddoos nag la sees bi nekk muy village bi fi la ñuy daje def nañ ko ay commission de wut nañ ay oto dañ wut maanaam gasoil bi danañ taxaw nit ñi fas yéene ku ñëw ñu jox la oto nga dem goxi dëkk bi yëpp ñu fas yéene oto yi dem fa ànd ak mbooloo mi ñu bale mbale mi kon ñu ngi woo kuréel yëpp bunti kër Cheikh Moustapha yëpp ñu ngi leen di woo daayira yëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi wax jëwriñ yëpp ñu soññi seen daayira ñu ngi wax ñi commission yi ñu tënk fii ngir war a liggéey ñoom itam nañ xam ne teel a xëy si teel a taxaw ci liggéey bi comme convoyeur yi itam daayira bu nekk war ngaa andi ay convoyeur yoo xam ne oto yi buñ taxawee dañ lay euh, joxe nga ànd ak chauffeur bi di di surveiller liggéey bi sar mi am ak la ci aju lépp nga loolu convoyeur yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxaw kon loolu itam ñi ngi koy fàttaliwaat bu baax mbooloo mi di fas yéene rek ñun ñëpp nu takku rek taxawaay bu rafet boo xam ne ci gannaaw sëriñ bi gannaaw commission bi sëñ Cheikh Ndiaye jiite nu xam ne tey Euh, dafa dëppoo ak tamxarit waaye fës nañ yéen it soobu ci liggéey bi rek ba ba màggal gi ñëw jàmm loolu rek lañ doon soññee ñu ngi jégg lu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.